ci heure bi bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñuy jël asana assobia muy gazwatu xaybar bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gàddaayee jóge màkk ñëw Medine boobu ba léegi ñu ngi ci ànd ak yéen at bu nekk la ci xew dugg nañ atam juróom ñaareel la ca xew mooy gazwatu xaybar mooy xeex bu yonent bi alayhi salaatu salaam waaj xeex ko ak yahud yi dëkkoon xaybar xaybar moom loo am importance la ci lislaam ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo waaj xare bi génne yahud yi nekkoon xaybar yépp xeex ak ñoom xeex bu metti bu yàgg looloo tax xaybar jullit ñi suñ ko déggee rek war nañu bàyyi xel xew-xew ya nga xam ne moo ca xew incha allah bi iznillahi tabaraka wa mbokk jullit yi bëgg nañu ànd ak yéen ci juróom wala ci fukki tomb yi nga xam ne moom moo xew ci xeexu xaybar bi ci njëkk bëgg nañ yéen ñi ànd ak ñun ci dars siira bi ngeen bàyyi xel bu baax a baax asbaab qiyaamu nabi sallallahu alayhi wa sallam bi gazwi yahud xeebar bëgg nañ ngeen ànd ak ñun ci xam sabab yi tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóg takk xare xeex ak yahud yooyu dëkkoon xeebar bëgg nañ yéen ñëpp ngeen xam sabab yi ñaareel mooy bëgg nañ ngeen xam forme ak melokaan bi nga xam ne yahuud yi aare woon nañ ko seen dëkk boobu def ko ay tata def ko ay miir wërale ko dëkk bi ba nga xam ne képp kuy seen noon soo ñëwee mënoo bëtt miir yi pour am accès ci ñoom bëgg na yéen ñëpp ngeen ànd ak ñun pour xam force boobu ñooñu nga xam ne moom lañu amoon ba defar seen dëkk bi sécurité boobu bëgg nañ tamit yéen ñi ànd ak ñun ci dars bi ngeen xam dayo ngeen xam diir xam temps bu nga xam ne am na ko jullit ñi am nañ jafe-jafe ci xeexu xaybar problème yi ñu ci jëlee ñoom jullit yi ak allahu subhanahu wa taala nattu yamu leen nattu ca xaybar loolu bëgg nañ ngeen ànd ak ñun ci darsu xaybar ba ngeen xam problème ak ay jafe-jafe yi fa jullit yi jële bëgg nañ tamit ba tey ngeen xam kayfa kaanat xaybar fatxan aziman lil muslimin min kulli nawaaxi siyaasa wal iqtisaadiya wal askariya mbokki jullit yi bëgg nañ ngeen ànd ñun ngeen xam jullit ñi xaybar lan lañ fa jëlee ci ubbeeku ubbeeku yu rëy yu màgg ci mbooleem côté ci côté politique ban njëriñ la ci jullit yi jëlee ci côté économique lan la ci jullit yi jële ci côté arme lan la ci jullit ñi jële ci wàll yépp nga xam ne xeex bi bi mu amee ba ba muy jeex lan la ci jullit ñi jëlee bëgg nañu ngeen ànd ñun ci dars siira bi ci xaybar ngeen xam lan la ci jullit ñi jëlee juróomeelu tomb mooy bëgg nañ ba tey ngeen ànd ak ñun jàngat xool kayfa nastafiidu min ahdaasi xaybar fi siraina alyawm ma bëgg nañ ñu ànd tey xool ñun jullit ñi naka lañuy ñuy def ba jëriñoo ci xew-xew yi amoon ca xaybar dar xew-xew yooyu amoon bu ñu xamee nuñ koy jëriñoo rek dinañ xam tey sunu bëre bii ñuy bëre ak yahud yi naka lañuy def ba génn ci ndax yonente alayhi salaatu salaam bëri woon nag ñoom daan duma leen daan leen bu ñu jàngatee dars yooyu ñun tey bëre bii ñuy bëreek ñoom ci sunu wàllu dund danañ danañ jëriñoo dars yu paase yi pour ñu xam yan yoon la jaar ba mën a duma yahud yi tey juróom ñaareelu tomb ba tey dinañ mën a xam al mudda allati qadaha al muslimun muhajiruna fi lxabasha jullit ñi ba ñu amee ay jafe-jafe màkk nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent nooni di ko jalti jalte ndey joor ak càmmoñ ci kanam ak ci ginnaaw wër siiñ ko di ko lor gu guddeeg bëccëg ba mu yebal julli ñi lañ dem Éthiopie sunu darsu siira bi dinañu jàngal wonnu julli ni ñaata temps ñaata diir ñaata waxtu lañu gàddaay jóge màkk dem Éthiopie daal fay toog juróom-ñaareel danañu mën a xam ba tey juhudu nabi صلى الله عليه وسلم في تطهير جيوب اليهود الأخرى بعد فتح خيبر danañ mën a ànd ci sunu dars xaybar bi nekk sunu kanam ñu mën a xam yonent alayhi salaatu wasalaam naka la laabale poche yi nga xam ne moom la yahudi dëkke woon ginnaaw ba mu ubbee xaybar génne yahud yi dëkk ba raxas dëkk ba ba mu set laabal ko ci sobey yahud dinañ mën a xam yenente alayhi salaatu wasalaam yan effort la utiliser woon ba mën a libérer dëkk bi setal ko laabal ko ci sobey yahud yi bokk yi ci yàlla juróom-ñetteelu tomb bëgg nañu ànd ak yéen ñu xam mallazi istafaadahu min qawli nabi li usaamata ibnu zeyd fa kayfa bi laa ilaha illa ñi ànd ak ñun ci fukkeelu tomb bi ci xeexu xaybar bëgg nañ ñun ñëpp ñun ñiy wax yéen ñiy déglu ñun ñëpp ñu ànd xool naka la ñuy def ba jëriñoo ndénkaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu dénkoon usaamatu ibnu zeyd keroog ba mu xëyee wax ko fa kayfa bi laa ilaha illa allah waaw usaama naka sa mbir ak laa ilaha illa allah noo xëyee illa allah nooy def ak laa ilaha illa allah na ñu ñëpp ñu ànd bu ci yéggee ci dars boobu ana lan moo taxoon yonent bi wax ko lii ana yan dénkaane ak yan leçon moo làqatu ci ginnaaw kayfa bi la ilaha illa allah fukkeel mooy bëgg nañ yen ñi ànd ak yéen ñun ñun ñu bokk ànd xool yan leson ad duruus al mustafada min umrati al qada yonent bi salaam umra boobu mu umra woon te mooy umra fay lan lañ ciy jëlee ci umra boobu mbokk yi xam ngeen ne ci atam juróom ci weer wuñ naan muharram muharram su ngeen ko déggee moom mooy weeru tamxarit ci weeru tamxarit ci atam juróom-ñaareel ca gàddaayu yonent alayhi salaatu wassalaam ca la yonent joxe ndigal nañu prepare bi tajhiz li ghazwi yahud xaybar te it jox ndi julli ndigal ne leen waaj leen takku leen préparé leen pour ñu dem xeexi ji ak yahuuti xaybar allazina kaanu muhayyijiina lil ahzaab didda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi gazwati xandaq lu tax ndax ñoom yahuud yi dañoo dëkk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu jóge Medina lool waaye yeneen mboolooy yi jóg contre yonent bi dajaloo seen force yahud yi xaybar amul dara lu def lu dem ànd ji ak mbooloo yooyu di sot yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax bi xare bi jeexee nga xam ne mbir mi leer na yàlla musal na julit ñi ci xare ahzab ndax ñëw nañ campé Madine encerclé ko waaye boobu fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam waajoonal na leen moo tax ba ñu ñëwee mënuñu am accès ci biir Médine waaye campé nañ foofu ba yàlla yónni benn ngelaw ngelaw li tasaare leen ñu daw ñoom ñëpp ñibbi bi yonent bi xàmmee nag noonam yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekkoon te yahuuti xaybar bokk ci mu ne ñii moom xaw ma lu xew waaye ñoom laay njëkk attaqué ba bu ëllëgee bu nu déggatee kuy xeex jullit ñoom duñ ci bokk mu mbokk yi yonent bi alayhi salaam ci waaj googu mu xaaj mu waaj nga xam ne ña ko doon sot ci xandak ci ñoom lay fayu wallazina laa yazaaluuna mujtahidin fi muxaalafati al aarab didd rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama qaddamna zalika fi qissati kaab ibnu ashraf nee na ñoom yahuti xaybar ñooy ñi nga xam ne dajaloo nañ coalisé ba nga xam ne coalisé woon nañ ko boole woon nañ ko ak yeneen arab contre yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme nuñ ko jànge woon ci xitte xissa yi passé ba ñu nettali ci mbirum Kaab ibnu Ashraf mu ne leerlu na ci ñu ko wër ci arab yi ñoo ñooñu nga xam ne nekkoon nañ ak moom ci Xudaybiya ak ñi nga xam ne ñoom ñoo wuute woon nga xam ne lànkoon nañ bañ a dem int bi yu leer fa qaala alayhi salaatu wassalaam laa tuxriju ma'i illaa ragbatan dëkk ci biir Médine ndax ñoom seen dëkk ci biir Madine midin yokk luñ yonent bi alayhi salaatu salaam dara lu dul di ko yàqal mbooloo bi nga xam ne moo ko topp te ñu dëggu ndax bu ñaar fukki jullit taxawee di xeex fanweeri naa fekk ñëw dugg seen biir léeg xeex bi tàng ñu daw ñu jax-jaxal jullit ñi moo tax keroog bi yonent bi bëggee génn dafa yabal benn waay ne ko waxal ca kaw ku bëgg a génn tey ànd ak man nga xam ne day génn ànd ak man ngir xeexi waaye àndul man àndul ak man pour am xanaayim mooy màng yi nga xam ne moom lañuy ñuy jëlee ci yéeféer yi bu xeex bi tàngee ba yéeféer daw wala yàlla dimbali jullit ñi ba jullit ñi am ndam màng yooyu di ci am euh, yonente alayhi salaatu wasalaam daf leen xamal ci teel ne na ngeen yéen a ngi nii di dem waaye même ñun jullit ñi bu ñuy gañee yéen du ngeen am kuy dem tey ji daal di ànd ak man na dem xam ne day xeexi ngir yàlla waaye xeexiwul ngir am koom xeexiwul ngir am màng wa amara munaadiyan yunaadi bi zalika yonent bi daal di joxe ndigal ne lii nañ ko wax ci kaw benn waay di ko yuuxu baat ci kaw di ko annoncé xam ne tey xeex bi ku génn du pour nga am ci dara waaye day pour nga xeex ngir yàlla tabaraka wa taala kese la bi alayhi salaatu wasalaam génn ginnaaw ba mu dénkaanee madinatul munawwar ah sabaa ibnu arafata al ghafari kooku la dénk Médine def ko amir ne ko yow day yow yaay ram yaa ma fii xaar ci njaboot gi yaay jiite julli yi yow yaay àtte lépp loo xam ne man yonent bi fi doon def tey yow ji yow mi yow yaay ki may wuutu ba ma dellusilaat mu ne arme bi daal nay sàppe ci njiital yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu jëm place boobu nga tudd xaybar bi ñëwee ba sori Medine ci ay kilomètres lu tolloog mil ca ndey ga ñu yëkkati seeni baat ñoom jullit ñu rafaw aswaatahum bi takbir wa du'a ñu yëkkati seeni baat ña nga naan allahu akbar di ñaan yàlla fa qaala alayhi salaatu wasalaam irfa'u bi anfusikum fa innakum la tad'uuna asman wala ghaa'iban innakum tad'uuna sami'an qariban wa huwa maakum julli ñaa nga doon ñaan yàlla di yuuxu ca kaw di yëkkati seen baat yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk wax leen ndànk ndax kat yéen kii ngeen di ñaan du ku tëx soriwul mu ngi leen di dégg waaw kon wax leen ndànk wàññi leen seen baat yi seen yuuxu yi ngeen di yuuxu ci ñaan mel ne da ngeen di woo ku sori allahu subhanahu wa taala mi ngeen di woo soriwu leen te tëxul mi ngi leen di dégg ku leen jege la kon wàcce leen seeni baat ngeen wax ndànk allahu subhanahu wa taala mi ngi leen di dégg kon incha allah doomu ndey mbokk yi loolu mooy première leson bi mooy asbaab qiyaamu nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ghazwi yahud loolu mooy première point bi mooy ñu xam sabab yi nga xam ne moom moo taxoon yahud yi yonent bi saa sallam attaqué ji leen ci seen dëkkuwaay boobu tudd xaybar kon loolu mooy première dars incha allah bii di ñëw ñu ngi jël kaanat il xusunu xaybar salaasa munfasalaat mooy ñu xam la wëroon xaybar ci ay tata ci ay miir yoo xam ne dañ ko tabax defar ko ba nga xam ne ku ñu jàpp ne seen noon la boo ñëwee di xeex ak ñoom doo mënal barrière yooyu doo mënal miir yooyu ak tata yooyu dara incha allah sunu darse bii di ñëw moom la jël ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ñun dégg ak topp ñu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi ñu xaar ci question yi incha allah